dañu doon tricher ba ñu mujjee leen jàpp teg leen loxo yóbbu leen tribunal àtte nañu leen tëj nañ leen lu toll ci fukk ak juróom ci ay fan yéen a gi de la sax xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum tricher gi ci école yi ci concours yeeg ci bac beeg ci BFM bi jamono ji ma ngi mel ni tulleeg màll ci réew mi journal bi nee na ci BFM bi ñi nga xam ne ñoo doon tricher ca diiwaanu Tamba ñooñee jël nañu leen àtte nañu leen yóbbu nañu leen sa kaso ba gi de enquête des ba tey ca diiwaanu Tamba foofee nag nee na am na benn xale bu jigéen boo xam ne dafa waroon a def bac bi bi maanaam une heure du la xale bu jigéen bi am doom huit heures xale bu jigéen bi dem defi bac bi yéen a kaay gi nee na xale bu jigéen bi daal na réussir journal bi nee na kookee nag moom jàngkat la bokkul ak trichekat yi nga xam ne dëkk Tamba yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy wax ci bac bi nga xam ne jamono ji ñu bari ne mekku nañ ne résultat yi baaxul syndicaliste yi ñoo xëy di ko càmbar yéen a kaay gi da la témoin wax ci lu jëm ci wàllum nga xam ne moom lay defee ay njombe ci réew mi di rey ñu bare bare bi na am na lenn loo xam jaaxal nañu lool fii ci Sénégal ndax nag am na ñoo xam ne daal faale wuñ coronavirus bi am na ñoo xam ne maanaam ma ngi mel ni daal dara xewul ci réew mi te bis bu nekk ñu baree bari ñoo ngi dee yéen a kaay de la témoin nee na sax li si gën a garaawati am na ñoo xam ne jàpp ñu ne ne coronavirus sax am na ci réew mi yéen a kaay gi di enquête Vox Populi su A xëy di ñu xibaar naan ñu sudee am na ñenn ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi loro bu baax a baax ci coronavirus bi mooy jigéen ñi nga xam ne dañoo ëmb maanaam jigéen ñi wanu lor am na ñeent ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan am na ci ay cas graaf yéen a kaay gi di réew mi ñu xëy fekk fa juste Amidou Dem Amidou Dem nag nee na coronavirus beeg ni nga xam ne moom la jàbbaa jonge ci réew mi état bu Sénégal moo si war a jël ay matukaay waaye nag état bi dafa war a am fulla war am fayda annulé mbooleem li nga xam ne ay événement religieux la maanaam rassemblement religieux yëpp yëpp yëpp la état bu Sénégal nag wara a annulé loole nag kàddu yu juste Amidou Dem la yéen a kaay gi di direct news xëy duñu xibaar naa ñu nag jamono ji am na ñenn ñoo xam ne dañoo jóg nag bëgg ñu annulé li nga xam ne mooy màggalu Tuubaa nag nañu ko tàyyi un siècle am ñoo xam ne Serigne Touba da leen di déranger yéen a kaay gi di Direct News daal wax ne màggalu Touba gi moom maanaam nag murid yi moom dinañu ko amal naam nag am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi jóg nag di def ay pexe di nas ay pexe ngir nag ñu annulé ko waaye nag loolee daal nañu ko tàyyi ndax nag màggal gi moom danañu ko amal yéen a kaay gi di Dakar Times xëy duñu xibaar naan ñu usine bi nga xam ne moom la ñu fi bëgg a def ci Sénégal ngir nag muy defar ay vaccin contre Covid bi nee na na si six cent cinquante cinq milliards yéen Quotidien bàyyi mbir moomee nag wax ci njëg yi nga xam ne jamono jii cher na ba maara détaillé jamono ji kenn mënul laal dara lépp cher dafa cher ba maara détaillé sénégalais yi ñoo ngi jàmbaat ba maara détaillé yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa ko sena daan nay wax ne njëg yi nga xam ne jamono ji yokk na nag état bu Sénégal waroon na ko moyto ndax état Sénégal moo waroon a jël li nga xam ne mooy ay matukaayama ñi nga xam ne nag ñooy commerçant yi ñoom nee nañu daal nañ leen si génne ñoom ba ñu set si wecc ñoom commerçant yi nee nañu ñoom seen nga ñi nekku si maanaam raxasu nañ si ba set si wecc ndax nag nee nañu daal en tout cas mënuñoo jëndee lu cher ba pare di jaayee yomb ñoom commerçant yi yéen i kaay gi di la ko di cee xëy wax ci inscription liste électorale yi ñi nga xam ne nag ñooy waa Pastef ñoom nag ñoo ngi ñaawlu bu baax a baax maanaam fraude bi nga xam ne jamono ji moo am nag ci Dakar Plateau ci gox bi di Dakar Plateau ca Aliou Ndoye ak nag sa Parcelles Assainies fraude bi nga xam ne maanaam nemmeeku nañ ko fa ak gox bi nga xam ne mooy Point E waa Pastef nee ngi de la Tribune nee na ca maanaam ay faux document fexe daal ba bëgg a bloqué ñi nga xam ne ñooy primo votant yi journal bi di Walf Fadjri nee na opposition bi jamono ji nag dañoo bëgg a ki nga xam ne mooy Macky Sall élection locale yi lépp lu Macky Sall man lépp lu mu mën a ngir nag gagné nag capital bi Ndakaaru Macky Sall dina ko def yéen a kaay gi de la xëy dañu xibaar naan ñu Karim Wade ak Macky Sall jamono ji am na ñuy dox seen diggante ñuy dox diggante Karim Wade ak Macky Sall ngir ñu juboo ngir ñu waxtaan yéen a gi di réew mi quotidien nee na réew mi di Sénégal maanaam réew maa ngi tocc ndax dafa am benn série boo xam ne maanaam cirque noir la tudd série boobi daal mën nañ koo tuddee sax maanaam porno ay xale yoo xam ne ñoo ko joué xale yu dëkk nga Ngaporo waaye nag journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa police ñoo ngi wër xale yooyu nga xam ne mën na ñoo wax ne maanaam film porno lañ doon joué yéen a kaay gi dee sa ñu xëy fekk fa Sadio Mané je suis prêt physiquement nee na pare na physiquement mentalement yéen a kaay gi li sunu làmb xëy nag sampabla ca nee na arène nationale bi waa arène moom kan lañ koy tudde yéen a gi nee na Mbaye Gueye Tigre la ñu ko war a tudde wala Falaye Balde la ñu ko war a tudde wala Boy Bambara